réforme yi jàpp nañ ni benn war nañoo góorgóorlu ba nga xam ni euh, suñu système éducatif dina dina joxaat fulla loolu ñu tuddee les normes standards benn jàngalekat bu bëree ba bëri ñeent fukk xale ak juróom yow tey yaa ngi ci benn jàngalekat pour ay juróom-ñetti fukk xale jàngalekat bu ne mu am ñu koy topp di ko nafaraat ndax kuy jàngale day kon ne di jàng yaa ngi ci benn inspecteur pour ñetti téeméeru jàngalekat alors que norme yi dafa bëgg nga am benn inspecteur pour juróom fukk jàngalekat psychologue conseiller booy seet réew yi gën a am doole fi ñu teg seen doole ci mbirum jàng ak jàngale mooy xale yi dana am ñu leen di topp pour di leen orienter parce que gis nga xale boo xam ni tekkiwul ci jàng bi parce que fi ñu ko yóbbu nekkul fi gën ci moom nekkul fi mu ëppee njariñ kon nag te tey yaa ngi am Sénégal benn psychologue conseil pour lu tolloog fukki junni e alors que norme yi dafa bëgg nga am benn psychologue conseiller pour 500. élève kon nag norme yooyu war ko xoolaat matériel bi ak livre yi manuel bi bi ñu nekk xale ñun dañu doon touché booy dellu kër ñu touché la nga am loo xam ne moom ngay tey xale bu amul waajur bu am boo delloo sa kër même boo bëggoon jàngaat bëggoon nafaraat amoo loo nafaree kon nag norme yooyu il faut en de perspective ko Sénégal jàpp ne da koy da da koy jàppale ñaar mooy ci biir réforme yi toujours ñun dañoo gëm ni loolu ñun ñuy wax académisation ñeneen di ko wax décentralisation dafa am doole mënuñoo nekk ci réew moo xam ni ba léegi doole bi dafay ëpp loolu ci côté ministre bi il faut ñu am réew moo xam ni ministre bi da ministère dafay xaw nag bàyyi espace ba joxat doole nag gox gox goxaat yi mooy waral ñu xam ni euh, que tontu bi nga xam ni moom la maatam di indi bu jafe-jafe bi amee dana wuuteeg tontu bi Ziguinchor di indi wala bu Kaolack di indi waaye boo bëggee jël benn tontu rek fasaal tasaal la ko ci biir Sénégal bi pour ñun dafay indi jafe-jafe kon loolu aussi dafa nekk pour ñun perspective bu am solo ñeent ñetteelu perspective bi mooy intersectorialité fexe ba nga xam ne njàng ak njàngale dafay mën di jokkoloog ak yeneen secteurs yi ñu bàyyi di tëj éducation ci école ba kase éducation dafa war di waxtaan ak santé di waxtaan ak environnement di waxtaan ak lekk alimentation di waxtaan ak assainissement kon te nag yooyu bu nekkee génne nañ cloison yooyu mur yooyu dafay nekk pour ñun en terme de perspective lu am solo ñeenteelu perspective bi ñu teg mooy fonctionnaire ak fonction publique il faut que ñu xam ni bi bi mbas bi ñëwee ki nga xam ne mënul woon rëcc. ñu forcé ko nag da ngay ñëw taxawal république bi kooku moo ngi tudd fonctionnaire te at yi ñu wees yëpp fonctionnaire mooy ki nga xam ni kenn moom mooy kenn bëggatul woon nekk mooy ki nga xam ne moom lañu gën a sàggane fonctionnaire bi mooy kan mooy infirmier bi kooku par force moo ngi woon ca biir hôpital ba mooy jàngalekat bi par force jógoon nga dem ca école ba mais joxaat gëdd aussi li ñu tuddee école publique parce que ndekete bu fekkee dañoo nekk réew moo xam ne dañoo juste ba nga xam ne may chance xale Sénégal bu ne nga nekk ci àll bi nga nekk jigéen nga am nga am laago wala jafe-jafe bu mënti am nga am chance réussir comme ñun ni ñu réussir parce que bu ñu réussir ñeneen ñee si jàpp bu fekkee ni soxoruñu te am nañ yéene googu te am nañ nite googu si ñun war nañoo joxaat doole école publique parce que école publique si le million gu sénégalais yi ëpp si ñun mën a solution damay tàmm di wax di man di yow bu jafe-jafe yu mel ni am ñu mën nañoo indil tontu suñuy doom waaye am na koo xam ni boo ko laajee ñaar dërëm kese du kooku dañ ko war xalaat kon loolu dafa nekk mbir moo xam ne aussi pour ñun euh, ndekk na ci perspective maintenant nag perspective immédiate yi mooy jóge nañ ci bilan bu ñu def ak ministère de l'éducation li ñu koy ñaan te wax nañ ko mooy ñett ñeent bu juróomi mbir bu njëkk bi mooy li ñu fa jàpp nañ ko waxtaanee ci gox-goxaat yi iyaay bu ko defee ñoom ñu seet nag ñun li ñu wax te mu nekk ay wax bu yaatu nan lañ koy jëmmalee seen gox benn ñaareel bi nga xam ne gis nañ ko mooy cours de vacances yi doon am te askan bi doon ko defal seen bopp mooy ASC e, e, de famille cours de vacances yooyu na ci nguur gi bi yoon teg loxoom ba nga xam ne du nekk kese cours de vacances euh, buy topp xale yi waaye day nekk cours de vacances boo xam ne day mottali ñetti millions xale yooyu nga xam ni dugguñu woon ci l'école ba nga xam ne dañ koy contrôler euh, accompagner ko ñetteelu mbir bi nga xam ne ñu jàpp nañ ko mooy ñun suñu campagne ubbi tey jàng tey je crois que bi ñu koy wax amoon na solo wala ren la gën a amati solo ndax ñëpp xam nañ ni déwén at la boo xam ni wax dëgg yàlla benn waxtu kese waruñu ko see ñàkk at la boo xam ne dafa war a ñëw mat sëkk ba mën a mottali li manqué ci ren konte loolu nag tàmbali école ba ca waxtu wa dafay nekk mbir moo xam dafa am solo donc ñoo nga woo ñëpp ñu xam ne ubbi tey jàng tey weesu ko si tët moomatuñ ko askan bee ko moom ñëpp mobiliser wu jóg ci dox ko ñeenteelu mbir bi nga xam ne jàpp nañ ne aussi war nañ ko def immédiatement mooy diggante bi jàngalekat di ñëw ak élèves di leen fekk si war nañoo mën a am nag ay conférence yoo xam ne si gox-goxaat la ci IEF yi pour mën a waxtaan ci loolu tuddee éducation en situation parce que Sénégal xamul woon situation de crise am na dëkk yoo xam ne dund nañ ko xam ne nañ ci génnee war nañ ci mën a gungawaat suñuy suñuy jàngalekat ba ñu xam situation de crise bu amee nan la ñu war a taxawee ak nan la ñu war a nekkeek seen i truc ñu koy tëjee nag ci yi nga xam ni mooy yi xam ne bu ko deful wax dëgg yàlla déwén mën na indi jafe mooy coow li mën a am ci diggante jàngalekat yi ak gouvernement il faut reprise de monitoring bi nga xam ne moo doon am diggante jàngalekat bi ak ak bi dañu ñu arrêté woon ko jot na nag ñu indiwaat ko pour mën a gàttandu jafe-jafe yi nga xam ne mën naa am jàngalekat yi ñu affecté leen ci waxtu élèves yi ñu orienté leen ci waxtu waaye jàngalekat yi nga xam ne génn nañ nekk ay sortant ñoom ñu seet nan la ñuy fexee ba ren ñu mën a tàmbali ci école bi bis muy ubbi loolu laajoon nañ ko daaw ministre bi tontu woon nañu ne ren moom dana ko def jàpp nañ ne aussi nekk na loo xam ne war nañ koo jëf école publique yi gis nañ ni lu ci ëpp seen budget ñoo ngi koy jot tardivement mois de février mars avril te seen budget sax ko coupé wàññi ko lu bëri jàpp nañ nag bu amee am nañ dégg-dégg ci mbas mi ba xam ne mbaskat boo koy tontu da nga war a at duggee ci ñi gën a néew doole kon nag bi yoon war nañoo fexe ba suñu école publique seen budget mën a ñëw à temps